Eh, pulo mon ami le grand boutiquier. eh tëjal sa làmmiñ laa wax bul ma catu mu naan la pili garab boutiquier di bul ma catu sa gémmiñ bu bon wi tontu ma lu ma la laaj naam na. mais Pulo yow lan la doo wax ndànk da ngay ñëw ba sama buntu kër di ma yuuxu. Fatou. Pulo wax ji jeex na de na jeex sinon ma ci faay la léegi. eh gasaani jeexul jeexul. Pulo soo amee fit topp ma topp ma ñaay laa wax mag yow kese ñu raag ba kenn duñu àttee. ñu dem yàgg te leen ne pour yow dama laa ragal jéedul wala fekk. eh léegi yegg nañ ci àll bi amul ku ñu boo waxee dem lay ndox ndox yi metti ba nga xam ne ndox naa la du ma sa morom. Pulo noppil yow da bari wax ak sa sewaay. eh taxawal taxawal fii baax na kañ keet yeeg ma ndox la fii baax na foo jëm. maa bañ yow pël nga du ma xeex yow fii nag yi di ma sot xanaa gisoo nag yi. nag yan nga lu seen yoon ba kami sol wala suuf demal si bahna, so mu kee Pulo, nga wax. Pare lan. fii de bu soobee yàlla duma keek leer na ma ne am na bu làq fii bu ma la jekkoo mu ñëw dóor mu kuur di la sotal sot pulo fii kenn nekku fii on est au milieu de la forêt su fekkee am nga fit rek dellu si li nga waxoon léegi ma duma la waxoo dëgg laa la wax dóora dóora yaa waxoon su ma ñëwee fii nga naxuma ajam naxuma xool ko kii nga tapet pulo trouillard ragal nga moom yow yaa tapet bu mag bi sam del bu ngande biir mel gaz bu ndaw Hey! E. Like Gensman. Tahulen. Pulau kur, sulah jakwe sinyai binga dede. Wai saundai, alai suluk nyai karma karma pakal yor ko nyamdi di jogi nyamdi karma din guñ di dalam may warga sugar koram pole ada ya pasti sugar vari koram pola din gun lepp dinar may way aga fadam. padam. Kau kau amat dinare, yi xale